tuddee euh, Baye euh, Solution Spiritualité moom la ñu fas yéenee euh, dalal mu di président bu fondateur bu solution voilà pour solution Baye Spiritualité donc Cheikh Baba Diallo lay doon ñu fas yéenee waxtaanee lu jëm ci actualité surtout nag li nga xam ni moo concerné wàllum lu gën a jege askan wi ci jamono ji ak li nga xam ni mi ngi commencé di jub nuy coowal xeet fii ci biir Sénégal xool lanam moo koy rek dindi boobu leen débat ñu daal di koy euh, di dakkal ak it xool également euh, nu ñuy rek euh, dindee mbir moomu ak xalaatin yu mel noonu fii ci biir réew mi laataaloo lu ñu indi leen li nga xam ne moo gën a fës ci xibaar yi comme ni ñu koy defee fajar bu jot dooree ko ak wàllum lutte contre le trafic de drogue dañu daal di teg loxo douane bu Sénégal moo daal di teg loxo lu toll ci benn ton ak euh, lu euh, yamook euh, cent kilogramme de chanvre indien ca Mbour donc au centre et sud du pays foofu lay la féete ñu daal ci teg loxo 1 tonne cent kilogramme donc loole bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci wàllum de travailleurs maritimes et aériens yi nga xamante ni jàpp nañ ni dañ leen war a nekk ñoom it ay cible prioritaire lañ ci wàllum vaccination ndax gis nañ nañ ni ay ñu am importance lañu ci wàllum euh, fonctionnement wu euh, économie bu euh, Sénégal ak it wàllum commerce mondial juróomi agence bu Nations Unies ñoom ñoo rek daal di wax dëkk yi ñu daal di inclure ci liste euh, euh, cible prioritaire yi ñooñee nga xamante ni ñoom ñooy liggéeyee ci wàllum jaww ji ak euh, lu jëm ci wàllum ndox mi fële ca Diourbel également m 2 bu mu fa defee déclaration itam def na fa déclaration di euh, dànkaafu rek ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo euh, te manifestant yi ba jamono ji loolee bokk na ci li nga xamante ni itam wax nañ ko di wax rek ne union des magistrats du Sénégal itam moom jàpp na ni loolu c'est inadmissible ñuy daal di dal ci kaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo di yenn ci juge yi nga xamante ni dañ leen jox yenn ci dossier enquête ñu koy daal di Euh, ñu koy daal di topp euh, ñuy wax aussi ci li nga xamante ni moom moo jëm euh, ci wàllum état bi nga xamante ni dañuy xool état d'avancement voilà projet agricole yi démb président Alpha Condé moom dafa daal di rek yëkkati kàddu di tuumaal li nga xamante ni mooy xew dakaar di wax ni dakaar fii la complot yu bëri di xewee te it jàpp na ni am na ci loo xamante ni Sénégal mu ngi koy sóob loxoom foofu la ca Guinée loolee la xamle di diir bi nga xamante ne mi ngi def benn tournée ngir xool projet agricole yi fan la toll foofu lee euh, ca dëkkam leneen li nga xamante ni tiis la xewee ci géej gi mu di ku ñuy woowee Malick Kane euh, am ay lu toll ci juróom fukki at àndoon ak euh, doomam bi am ay fukki at ak juróom ñoom la daal di ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakken ci géej gi gannaaw ay bësa ngi nii ñu leen di wër gisuñu leen daal di nañ gis seen koor ñaari fan gannaaw ba ñu leen doon xool ci biir géej gi dañu demoon utali géej gi nag loolu moo tax seen pirogue bi gannaaw ba mu amee ab ngelaw du fort moo ko daaneel retrouvé nañ pirogue bi ak seeni corps donc loole xamle nañ koy itam lu gën a fës ci wàllum yéenekaay bu ñu jógee foofu daal di wax ci wàllum Covid 19 gis nañ ni kaay yi jamono ji gis nañ benn tendance baissière baissière maanaam lim bi mu ngi gën di wàcc euh, saa su ne démb lu ñu def ci test mi ngi toll ci 1139 liñ ci génnee ci cas positif toll ci 46 11 yi moom moo di cas contact cinq yi ci des nekk ay cas. communautaire donc ñu enregistré ko diggante Dakar ak yeneen région yi 287 euh, patients ñoom ñoo daal di wér ñu wax ko ci communiqué bu démb bi juróom-ñaari décès nag la ñu am ci wàllum euh, Covid 19 di wax rek ne euh, Sénégal jamono ji ñi nga xamante ni ñoo nekk sous traitement maanaam ñi nga xam ne ñi ngi leen di faj ñi ngi toll ci 481 patients ñoom ñoo nekk. Euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy faj waaye itam ñu jàpp rek ni cent mille 234 099 personnes daal di nañ leen di vacciner diir bi fi campagne de vaccination bi euh, tàmbalee ak loolu léegi loolu bokk na ci li nga xamante ni euh, moom moo gën a fës ci wàllum euh, Covid 19 waaye itam di fàttali ne jamono ji li nga xamante ni moom moo di monde bi mi ngi enregistré ci lu toll ci 128 mille 700 128 millions 762 mille 102 patients diir bi fi mbas mi duggee ak léegi waaye itam di fàttali rek ne 2 mille 2 millions 800 ñoom ñoo si ñàkk seen seen bakken million millions 900 ñoom ñoo ci daal di weer million millions 27 ñoom ñoo nekk jamono ji sous traitement ginnaaw ba ñu defee ci lu toll 1 milliard 909 millions 11 mille 476 tests yoo xamante ni def nañ ko ci àdduna bi yëpp loolu moo nekkoon li gën a fës ci wàllum xibaar jëm ci wàllum Covid 19 ci biir réew mi. ak ci bitim réew dañuy daal di def noonu nag xool li nga xam ni moo gën a fës ci yéenekaay yi dooree ko ak le quotidien mi ñëw ci euh, sorti imam grande mosquée bi ba mu ko defee ba noppi Omar Dieng moom moo daal di ñëw di ko euh, sermone di wax itam ni am na ci kàddu yoo xamante ni imam bi ci jàkk ji képp la yem waaye itam indi euh, doxalin bi nga xamante ni commission bi mi ngi koy doxalee depuis juróom-ñeenti at ci tey donc loolee lépp mi ngi ci biir le quotidien mi daal di fësal kàddu kii di. Oumar euh, Diène bu ñu jógee ci le quotidien dañuy daal di xool yi réew mi quotidien bi ñëw ci euh, Sénégal naka la ñu mën a daal di euh, freiner parti politique yi nga xamante ni saa suñu xëyee dañuy gis ne day gën a law ku xëy rek daal di créer parti parti yi bëri fi lool mel na ni daal réew mi quotidien moom loolu moo ko soxal mu daal di wax ne naka la ñuy mën a def ba daal di rek freiner dakkal prolifération des partis maanaam law bi nga xamante ni parti politique yi saa su ne eh, dañuy gis ni day gën a eh, bëri ci biir euh, réew mi euh, Sud Quotidien daal di titré moom lu jëm ci report élection locale yi nga xamante ni amul consensus maanaam déggoowuñ ci acteurs politiques yi déggoowuñ ci lu ni mel mu mel ni daal jamono ji euh, dialogue politique ba ñuy woote mi ngi sooxee surtout nag lu jëm ci wàllum report élection locale yi nag gis nañ ni classe politique bi moom jamono ji loolu bokk na ci lu leen xaajale gannaaw Sud Quotidien ñu daal di ñëw ci Walf Quotidien mi ñëw ci. ñàkk respecté bi ñu ñàkk respecté yenn ci accords yi ak inégalité yu am ci traitement yenn agent yi donc mel na ni daal euh, épidémie bi euh, yamul rekk ci wàllum Covid 19 waaye dem na ba ci mbirum euh, santé ak nu ñu koy gérer loolee lépp mi ngi ci biir Walf Quotidien gannaaw Walf Quotidien ci Vox Populi la ñuy daal di ñëw mi nga xamante ni dafa daal di rek fësal nataalu kii di Euh, Serigne Modou euh, Kara bi nga bu ñu gisee ni euh, am na ay manifestation ci début mois de mars bi moom nag daal di na ci àddu dine ñun ñëpp war a am gàcce mel na ni daal responsabilité yi daf ko daal di situer daal di wax ne ku ci nekk rek am nga ci responsabilité ci liy xew ci début mois de mars bi ñu nekk gannaaw loolu tribune quotidien la ñuy daal di eh, ñëw eh, mu mel ni daal demande sociale yi mi ngi gën a takku ndax eh, métit bi nga xamante ni jamono ji ñu bëri ñu ngi koy dund rawatina yenn famille yi mu mel ni daal kii di jiitu réew mi di président Macky Sall dañ ko daal di wër nombre rek ci ay jafe-jafe yoo xam ni chômeurs yi ak pêcheurs yi père de famille yi ak enseignants yi ñu ngi koy réclamer saa su ne loolee le tribune quotidien daal di xëy xamle témoin moom dafa daal di ñëw ci mbirum création d'emploi mu ne lan moo tax kii di président yi fi nekkoon di ku ci mel ni Abdou juuf ak Abdoulaye Wade lan moo tax ñu échoué su lu jëm ci wàllum xëy fii ci biir Sénégal euh, tey loolee la témoin daal di dikk ak ñun ci ab euh, waxtaan bu yaatoo yaatu loolu moo nekk ci lu gën a fës ci wàllum euh, yéenekaay ci témoin quotidien gannaaw mooy quotidien dañuy daal di ñëw ci euh, l'observateur mi nga xamante ni dafa ñëw ci Covid 19 bi li mu indi ci ay euh, jafe-jafe fii ci biir Sénégal bokk na ci loolu ci yenn ay chef de famille yi nga xamante ni dañ leen dàkk fañ leen doon liggéeyee ñu daal di euh, rek diisoo waaye jox seen kàddu voilà l'observateur wax itam ci ñi nga xamante ni seen ay dépenses matul. wax aussi ci ñi nga xamante ni dañ leen doon euh, héberger te jamono ji amuñu sax euh, lu ñu joxe loolee lépp daal mi ngi ci biir euh, l'observateur mi ci indi ab taxaw seetlu bu yaatoo yaatu gannaaw l'observateur euh, kii di libération moom dafa daal di ñëw euh, ci kii di Guy Marius Sagna mi nga xamante ni jamono ji mi ngi ak trois libertés provisoires mu di ay bàyyi néggandiku yoo xam ni bu ci nekk ak euh, lu taxoon ñu bàyyi ko donc jamono ji moom Guy Marius Sagna génnaat na waaye dossier yëpp ñu ngi ci doyen des juges mu mel ni daal liñ ko placé en garde à vue mat na 30 fois moom mi di Guy Marius Sagna ñëw nañ itam ci millions yi nga xamante te ni récolté nañ ko en quelques heures bien sûr daal di koy jëndal oto boo xamante ni dina ko mën di euh, jëfandikoo loolee la libération xamle critique quotidien moom dafa daal di ñëw ci député yi nga xamante ni rek dañuy daal di euh, démissionné wala ñu daal di leen di euh, dàq ci seen poste yi leen jox ci partie yi muy deux cas urgents yoo xamante ni teg nañ ko ci tableau kii di Moustapha Niass donc ñaar ñi mu di Déthié Fall ak ki nga xamante ni moo di Cheikh Issa Sall gannaaw critique quotidien ñu ñëw ci les échos mi nga xamante ni ci wàllum attaque ak saaga yu ñu doon saaga Dakar Actu ak administrateur am loolu moo waral quatre proches ñi nga xamante ni jege nañu Marcel Diagne dañ leen daal di euh, teg loxo ni ki démb mu mel ni daal ñeent ñi ñoom jàpp nañ leen ñi ca des dañoo daal di daw bu ñu sukkandikoo ci euh, les échos mi nga xamante ni wax na ni kii di Prési Cissé Abdou Karim Metsu euh, Mouta Diop ak Abdou Gueye ñoom defeere nañ leen dañ leen di defeere tey ji loolu la xamle le reste de la bande ñoom ñu ngi leen di wër jéem euh, mar euh, ki nga xamante ni moo di la Diagne moom mi ngi wax ne ne ko sëriñ mbu sëriñ Diagne daal di jéggal loole la les échos xamle ci xëtam bu njëkk direct news dafa daal di ñëw ci euh, construction wu poor bu ndaayaan di wax rek ne jamono ji directeur général bu port moom dafa daal di rek gën a xàll yoon wi ngir mbir mbir moomu mën a antu bu ñu sukkandikoo ci lii direct news daal di xëy. Euh, titré loolu sax la ñuy daal di euh, tëjee jotaayu revue de presse bi comme ni ñu koy defee bés bu jot ñu daal di rek fàttali que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux xooli benn page publicitaire ak la rétrospective de ce jour daal di dellu si euh, dalal suñu gan ci kanam tuuti.